li mu dawal kër gii ci ay kilomètres ci waa moo xam bitim réew la wala fii biir réew ah, ba keroog boo faa bayot ba dee nga amee xoolal loolu image am boobu laay gis ba léegi mook buggaan ngee dana ña nga toog ca buntu xabru ñooñu ñu gas ba suul leen sa bàmmeel ba wallaay mu leen di ñaanal mu leen di ñaanal yàggul barki dem boo njaay la fa bayot li mu fi daw kenn dawu ko fi fii ci biir kër gi sama bopp nag lay commencé hmm. balaa balaa am ñu may mere man boog man day li fi doos daw man day dawuma genn wàll gi. cey waaw ko amoon njariñ la. yàllaay kay waaw yal na ko yàlla xale ci àjjuna yi gën a kawe. allahumma amiin allahumma amiin sallallahu taala alayhi wa sallam ah, ak jabar ngeen loolu di ñu nag fajar gu jot waa Sen TV l'officiel. waaw ñoom ñëpp dañoo bokk. ci mbir mi waaw waaw. Euh, Kër Ndiaye Lo Yoro Fall ñu lay nuyu dégg nga. dama koo mere. da nga naan dañ koo mere. non non non Yoro Fall dañ koo mere non non non Yoro Fall moom Yoro Fall Yoro Fall moom du dugg. non éliminé naa ko bu non non après après ma wax ak moom. doo ko éliminé. non non Yoro Fall kay. doo ko éliminé. Yoro <laughs> Fall moom dañ koy éliminé teel. <laughs> mook sa femme boobu la mook sa femme balaa yemale. kan xaw ma RCD. xaw ma ah madame Fall. non ñooñu moom day jaay. ñooñu moom eh, kooku RCD la bokk. kan RCD la bokk. kan moo bokk RCD. moom kooku jël jël nan la tudd Ngañ Diop wala Ngañ Diop. Ngañ Diop. ba mbaaj bi lool jël ko moo gën. madame 4C moo gën madame Fall. <laughs> dégg nga monsieur le maire. Euh, yéen a kaay groupe des médias. te ñun yéen a kaay ñëw ak ñun ci. Mm-hmm. coowal Sénélec ak Akile. coow la dafa andiwaat. contrat bi cent quatre-vingt-sept milliards la. dafa bari nag. <laughs> liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk Sénélec nag. Mm. yekk nañu lu mel ni xeme directeur u Akile di Amadou Ly. tey ku muy andi. tey ka la fii. Euh, non non non non non tey dire tey ministre courant. est-ce que ñu euh, indi Amadou Matar Cissé. wóoral ma Matar Cissé. andil ñu ministre de l'énergie. nag ma ko tegal fii. am dama tegal ma fi tam. ministre bi ñu dénk wàllum pétrole ak énergie ci réew mi. Adja moom moom di sori moom. mais mais tegal ma ko fi. waa nee na Adja nga def ko stand by mu. toog ko waaw <laughs> Adja fi ne <laughs> tegal ma. Amadou Matar Cissé wutal ma ko tegal mu wax ci Amadou Matar Cissé moom il faut nit ñi wax ak moom. ci akile ji ah parce que liggéeykat yi nekk Sénélec ñoom li ñuy naqarlu mooy. Mhm. Sénélec lim mën luy ndeyu mu koy joxe. man looloo ma jaax déggoo ma de. mais loolu. Hmm? cent quatre-vingt-sept milliards. am say loxo diwut ku la sexal. tribune yéene kaay nañu doo sa góob. waaw. ñu nii nag fi mu nekk nii. tëdd ca mbaaw. ci këram gu mujj ci àjjana yi gën a kaw bi gu mujj dégg Aly Ngouille la xew ca Medina day dakk way couvre fa ngeen génn lakk boo amee ngeen fay ko war a delluwaat di jubilé jubilé nguy nee na loolee day jeex ci min réew mm-hmm. déggoo ma de les écoles yéene kaay ñëw ak ngeen ba léegi ne la monsieur le maire ti coowal ak kille ak Senelec mais Amadou Mahtar Cissé anamu ah mu ngoog <laughs> bii nag kanam gi daf xaw a yërëmtal nag yërëm ko rek yërëm ko rek nag. Eh, yow monsieur le ministre yow moom yow. Ah. tey nga gindi nit. moom dafa mel ni maa moom dañoo niroo ko sim sax. am ngeen niroo ko sim tey. di nga gindi nit ñi ci coowal. Akile ji Akile ak Sénélec. Mm-hmm. syndicaliste yi ci boppam contrat bi la ñu xotti. bëgguñu si waaw ba pare sàkku nag ñu indi ci lànket audit. ah oui ñoom xam nga lan moo leen jaaxal. Mhm. ñan ñooy actionnaire wu Akilee. Ah. mais ñan ñoo nekk ci ginnaaw contrat bii nga xam ni kenn xamul lan la. ay jëm wiir da cee am ndekete. cent quatre-vingt-sept milliards. waaw loolu tam mooy lan. Mhm. ba tax na nag Sénélec da nga nekkoon te bab de démb bi tey ne fa tey liggéeykat ya nee nañu ña ngay woo syndicalistes yi nekk ci boîte ba yëpp. Mhm. ak ñi nekk ci biti ñu ñoo jàpp ci xeex ba pour dire non. parce que jàpp nañu ne lii scandale la. 187. akile. <laughs> ay comploteurs waa ñenn ñooy comploteurs yi nag ah. <laughs> nee na mm-hmm. di créer ay milliardaires. extérieur ñeneen pour la dégg les échos yow bul sori les échos yéen a kaay ñëw ak ñun ci. <laughs> Ah, coo coowal coowal diwlin beeg suukar bee ñëw tey tey du ceeb. ceeb tey du ceeb. quand on parle de ceeb xel yëpp day dem ca marché ba indi Adja <laughs> yow waaye doo sori. yow doo sori nee na nga andi Adja. indi Adja. en bleu en musóor bleu. sa fameuse photo de ah. voilà dégg nee nañu Idi Thiam. Mm-hmm. ina quoi. mais lii Idi Thiam doo nga gagné marché bi. juróom-ñeenti milliards. Adja Ngok turo waaw kay Adja léegi diw ji. <laughs> ak suukar si suukar yow loo maîtriser la. diw ji ak suukar si. Uh-huh. Idi Thiam nee nañu juróomi junni ci ay litre diwlin juróomi cinq waaw juróomi junni ci ay tonu suukar. te Idi Thiam ministre bi dane ku amul stock bu tege marché bi doo ci bokk mais am nañu benn source boo xam ni. lu mu wax. waa ji amuloon stock ni toll. idi mel ni waaw. ñu ni ah. ah. kooku nag Adja il faut nga wax ci. ah loolu lijjanti ka nag. dégg nga loolu. Adja lijjanti loolu. ah donc ah léegi nag Sud Quotidien ñëw ak ñun ci comité bi tonton def. Mm-hmm. tonton créé na de suivi. pour ah, fonds yi. bi général jiite waaw bi dëgg la mais acteurs yi ñu jël d' accord nañ waaye door nañ mais. trois waaye Moussa Seydi professeur li mu wax ragal na. mu ne nee na situation bii mën na fee gën a doy waar. Hmm? sàggante goo xam ne moom la Sénégal ay nekkee. fàggandiku goo xam ne tam manqué na. lii la professeur wax monsieur la maire. dégg nga réew mi quotidien ñëw ak ñun ci ñoo ko bàyyi Diouf nee na lu ëpp juróomi téeméer ci ay daara tëj nañ leen. 752 enfants jëlee nañ leen ci kaw tali bi. lii lii la wax. libération yéen a kaay nañu nag Medina bomb la. ah nañ ci ah Adja dem na dem na ca Medina. Ah, waaw kay dégg Medina. boom ba toog seen kaw de. ci ba jàngoro di tàmbalee ak léegi fii Bamba jiite vingt cas am na fa bokk na ci ñett communautaire ñoo xam ni kenn xamul fu ñu dëggee lii di jàngoroy mbas mi. monsieur le maire saafara ko. Ah? moom mooy borom solution. Bamba Fall waaw. dana ko xeex Bamba Fall. dégg Mansour Faye. Hmm? Adja Faye bonjour. léegi nag. Faye Birame benn waagaan. léegi comité bii ñuy teg. te hmm. général bi jiite ko. journal bi ne lan mooy njëriñ. piloté. comme que. non lan mooy njëriñ lii parce que médecin après la mort. moo a jaaxal luy piloté kay. moom waroon dëkk teg waaye mënoon nañoo bàyyi Mansour doxal. doxalal. dégg kon suivi. waaw kay source a nag ñëw ak ñun ci ndimbal li président yóbbu bitim réew diaspora. Hmm. waa Amérique moom. xuloo xiiroo ngaayoo ba ca armeel ya cey xuloo xiiroo ngaayoo loolu day na corona ji day corona ji day bàyyiwul sax malay Moussa Baldé ngi ni le ministre agriculture juróomi million mhm. ngir waa Kolda coronavirus yaa ngi nii rab yi lapin yaa ngi dee lii nag moom vraiment kenn xamatu dara desul waaw dégg fatu docteur Bousso gis nga instant bi dañu nekk ci benn tournant waxul tournant de tournant. tournant comme tey football. match sa waa ji dóor la un Ligue des retour nga mën a un am penalty ñu ne c'est le tournant du match waa ji boo ko dugalee rek. day jëpp gi. mu jeex nga raté ko. eh match ba jeex. ñu ne penalty boobu c'était le tournoi c'était le tournoi du match. sànni tàcc ko instant bi célébré yoon koo xam ne moom la ñu taxaw. Mhm. maanaam day tànn. jaar ci yoon ba ah jaar. ah oui ah oui fi mu nekk nii moom loolu la am bay joxe dërëm. Mhm. l'observateur nañu tey nag ma yeggaleen juróom ñoo xam ne ñoo dee. Mhm. ñàngooray mbas mi. président Pape Diouf a njëkk a faatu. ami soble dee xaritu kii la. ndeysaan. xaritu Adja ak tonton Macky ki ko tuddee woon ami soble dégg nga ak ki dee ca Kër Massar góor gi jaataama dee ca Ziguinchor ak góor gi dee démb am juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay at soixante-dix-huit ans soixante-quatorze ans yi mm-hmm. moo xew Medina rek démb ramasse nañ fa ñu bëri quatre-vingt-cinq personnes rek nañ kon dañoo génnaat démb waaw waaw ah. dañoo génnaat kon démb génnaat nañu ah en tout cas ramasse la seen nañu nag lii xeeñ neexul Hmm. Adja nag il faut nga génn. dox ci wax ci de. je t'adore waaye naa génn gi wala nga ah. boo génnee lu it na nga yónnee. wala nga toog rek. toogal rek. boo ñëwul it ñëwal. ñun day ñàkk pexee tax waaye konoon. toog nañu ñu lalu wallaay dañoo mënalul suñ bopp dara. moomuñu fi ñuy liggéey dañ ñoo yilif ñu bëggoon na nga déel ñu tonton. ni ko ñu confiner nous. parce que lii xëy neexu benn yoon. déedéet ci benn bis ñaari nit dee ci. Mhm. cas communautaire yi saa yi bu ñu xëyee gën di yokk. nit ñi feebar xamuñu fan la ñu jëlee mbas mi. lii la kenn xamul lan la moo taxit gis nga solo lii di masque yi directeur sécurité publique mu ngi nii Abdoulaye Wahab Sall démb wane na boppam. pire pire pire pire pire pire kaay monsieur le maire. mu ni ñetti fan ñetti moor. te noonu la ko teglee. takk der yi nag démb sol par force masque. muy jot jot marché Ocass gis nga ko mi ngi nii. te Touba marché Ocass. marché Ocass. waaw tëj nañ ko. na ko tijjee yéen a kaay ne tëj nañ ko pour trois jours. dégg critique yéen kaay ni ñu ngi nattu yàlla la wala mbugalu suñu borom la. ñaar yooyu de benn la ci. imaam Kanté ne nañ leen dellu ca addis ba. Mhm. mi ngi nii. yonent ne buñ lor kenn waaye buñu kenn lor. dafa leer. ñaari rek moom moo fi am. lee nag doy na waar. Aliou Sow di daasu Mansour Faye nii. ak coowal naar bee. mel mhm. ne réew mi. la fa fa. Riyad mel na ma nga ne naar ba. kon Riyad ñaawat na tey. daaj bi. daaj. daaju Mansour Faye. boo mhm. nekkoon daaju ministre de jamono femme jamonoy Ablaye Wade. te naar ba da doon gagné foofu tam marché ñu ne est ce que nekkoon na ñoom ñaar ñooñee dañoo xame. tey dégg nga loolu le quotidien yéen kaay nañu nag séddale lekk gi ni sabar gu tas la grosse pagaille maire yi nag lañ jëm baaraamu tuuma. Mhm. monsieur le